du ñor Macky knows Macky xam na ne ceeb bii mu yàq teg nii ci cin li moom du ko yàq ci ginnaawam lañ koy yàqee ci ginnaawam lañ koy lekkee il le waaye dafay jéem day defanteeg yàlla loolu mooy zioniste loolu mooy satan loolu mooy ñoom seen farmaçonnerie bi ngay dégg maanaam ñoom dañuy ñëw ñu ne la yàlla ñoom gëm nañu ne yàlla am na xam nañu ne yàlla am na waaye ñoom dañu yaakaar ne mën nañoo défier yàlla dañuy jëflanteeg yàlla moo leen dal c'est tout simplement ça gis nga tey boo xoolee li xew DGE c'est flagrant li xew DGE c'est flagrant ñun ñëpp xam nañu ne maanaam dëgg baa ngi ne jàng gàññaaral di ñu xool li ñuy ne li ne fàng kenn du ko jiix dëgg baa ngi ne fàng fàngaaral ñu bëgg a forcer gi jiix ko di ko jiix dañ ko bëgg a forcer jeex jeex ko xam nga tey lan moo xew voilà dama leen di ñëwal fii DGE dañu am problème problème bi DGE am mooy dañoo fen dañoo génnee ay caaxaan ñu sos ñu ne waaw comme toujours niñ ko daan defee rek nee nañu turu Ousmane Sonko figuré wul ci list électorale yi te ñoom mënuñu ko cee def wax nañ dëgg de daaf mooy def loolu et pourtant daaf leeral na àdduna bi yëpp daaf leeral na àdduna bi yëpp ne gars yi jéggal leen ma baal leen ma tuuti rek daaf leeralal na àdduna bi yëpp daaf leeralal na àdduna bi yëpp ne Ousmane Sonko mi ngi ci liste électorale yi daf leral na loolu yéen yéen nek ci dëkk bi yéen mom dëkk bi yéen fi man génne ngeen ay xale mais loolu yëpp ma man man est-ce que sénégalais xam ngeen dara dama bëgg wax sénégalais lay jox ay misal est-ce que xam ngeen dara Macky Sall ci bopam gëm na ne daanu na parce que dans les normes dans les normes logique lay wax bu fekkee ne Ousmane Sonko Macky Sall gëm na ne du bokk ci liste électorale yi ñoom mën nañ koo xañ a ci liste électorale yi pour ma woon leen rek logique pour Macky Sall ci boppam xam na ne mënu koo xañ lu tax muy bàyyi jeunes yi nyoidam bu Legi Macky gona rek mooy nekk ci liste électorale yi ak mi rek ñoo rek dem élection yi ñu leen di mi logique gone yi ñom liñ leen di génné réew mi la plupart des temps ñaar la xam nga luñu wax euh ñu né wax feñ tay dama ak sama ben xarit ñuy discuter ku and ak Macky la daf ñu fekk ñuy wax benen wax benen discussion kaddu ndaysan ñu né wax feñ kaddu bi daf ko rëcc nak parce que dañu doon wax ci mbirum immigration clandestine. xam nga lan la juum wax mune effectivement loolu liguey gouvernement la manam gouvernement mom moy baye xale yi génn parce que bëggul xale yoy yëpp nek ci biir dëkk bi diko jox ay problème imaginez len imaginez imaginez man damay man motax tax waxtaan ak man am solo parce que bo waxtaan ak man dama koy jariño imagine li ma wax de encore li ma wax une fois waa ji mais bien sûr parce que ñun bi ñu toogee di waxtaan ñu ne ko ñun de dañoo am firnde ne gouvernement bi ci boppam moo ci immigration clandestine man loolu laa wax ci biir waxtaan mu ne noo xam nga effectivement boo xoolee comme yeneen réew yi waaw xale comme réew bu bare ay gone comme bare ay ay ay xale ay jeunes voilà gouvernement yi du ñu bëgg xale yi jox leen problème waaw moo tax ñu leen ñuy bëgg ñu génn réew mi xam nga Chine lan la def ak doomu aadamaam yu bari Chine balaa Inde Chine mooy réew mi gën a populé ci àdduna bi balaa Inde Les surpasse. mais Chine avec presque un milliard et demi de personnes Chine Je vais am ci doomu allo allo amo amo live allo Okay, I'll que yéen a may dégg est-ce que yéen a ngi dégg li may wax maanaam Chine un milliard presque et demi de personnes maanaam un virgule deux un virgule trois milliard de personnes Sénégal 17 millions Madame, Chine maintenant Sénégal Junion. million. déglu ma li de Chine Chine y a une population Chine chinois yi ngeen gis de dëkk bi quand il xayma population ak Sénégal Maintenant, pas t'aimer, parce que 17 millions fois 10 170 millions fois 100 Waouh. mat nañu téeméer waaw Chine mat na Sénégal téeméer téeméer maanaam boo doon xayma 17 millions yokk ci 100 muy 1 virgule presque milliard imaginel Chine mat na Sénégal téeméer ci ay doomu téeméeri yoon ci ay doomu aadama ci xayma téeméeri yoon maanaam Sénégal li ngeen am noonu nga multiplier ko par cent Chine mat na ko waaye pourtant foo dem ci àdduna bi nga fekk leen fa même bu dee réewu jàmbur dañuy tekki because they well trained they well trained dañ leen entraîner préparer leen ils sont préparés they well trained ñun ci réew moomu la ñu nekk ñu nekk ci réew moo xam ne journalistes yi dañuy génn nañu faatu yeneen journalistes yi génn ne wala di ñu sosal dama leen di tegal benn exemple loolu ngeen déglu lii ndeysaan caaxaan nañu ba mu génn àddina <coughs> baal leen ma une seconde rek may leen ma une seconde ma indil leen vidéo bi caaxaan ne caaxaanee nañu borom xam-xam ba mu génn àddina borom xam-xam bu mag caaxaanee nañ ko ba mu génn àddina caaxaanee nañu ko ba mu génn àddina imaam Alioune Badara Ndaw caaxaan nañu ba mu génn àddina ci ay fen dama bëgg ma indil leen li l'observateur moo defoon masiba naaru laay bi télé yu Ndour yi toujours ñoom ñooy def masiba bi déglu leen ci ñooñu déglu leen ma indil leen toujours tuuti imam Aliou Ndao la woon ak yeneen fanweeri nit ci ñooñe am na ca ñaari jigéen ñoom ñaar ñëpp soxna imam Aliou Ndao lañu mu di Kumba Ñang ak Mariam Sow léegi ko nañu waaye gaañi ay tur yu garaaw la ñu amee la ngay dégg moo di ay Abu Anwar Abu Hafsa Abu Jafar Abu Yusuf Abu Musa Abu Khaled Zubayr Abu Zikifi ak Abu Jandal ay doom doomi Sénégal lañu waaye noonee la ñu tuddee seen bopp tur yooyee moo nekk ca dossier ba tuuma yi ñu gàll ci seenu ndodd nag ay tuuma du ko gën a rëy enquête ba it feeñal na ne fekk nañu xaalis bu bari ci kër imam Aliou Ndao ay millions yi millions yi dollars la ñu fa fekk kii di imam Aliou Ndao déggante nag waa ji di Ibrahima Anne ay yooni yoon déggante nañu lu mat ñetti téeméeri yoon libération xëy yokk ci xarmi karaw xamal ñu ne bi mooy guleet ci réew Sénégal ñu fi àtte ay nit di leen toppee bi di terrorisme éneg moom jël lii ci yenn médias bon une partie laa wax nag surtout ah surtout libération di attaqué imam bi di wax loo xam ne dara du ci dëgg te xam nañu politique yi ñoo moom libération lii mooy masiba naaru laay nga xam ne moom la ñuy dund bokk na ci li ñu meree waa ji ba léegi moom Abdou Karim Gueye moomu moom loolu la nekkee kaso fi may wax ak yéen nii moom mbirum imaam aliwun Badara Ndaw moo tax mu nekk kaso moom abdu Karim géey mii may wax ak yéen masiba yi nga xam ne moom la ñuy dund tey ci Sénégal dama bëgg ñu dem déglu kàddu Ousmane Sonko mu sell mi li mu waxoon ci immigration clandestine. suñ leen ko solution jël géej gi solution suñ leen ko waxee nag da ngeen naan ay moralisateur lañ dañu ñëw di ñu jox ay leçon déedéet. gis ngeen fa ngeen di bëgg a dem ba tax ngeen di jël gaal gi di di jël di di di ci dee ñooñu amul lenn lu ëppale ci koom-koom ëppale wuñ ñu or.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 voilà. lii ngeen dégg léegi lii la président Ousmane Sonko wax jeunesse sénégalaise ñun nag euh, daanaka mën naa ne bokk nañu ci population yi gën a jafee waxal bokk nañu ci population yi gën a mettee waxal ndax am na nooy waxee sax amaana ñi nga xam ne amuñu yéene bu rafet dinaa leen wax dara doo leen mës toog ci tele naa fait ba ngeen fan ñuy immigration clandestine ci volume bi nga mom moy génn duñ ci wax Papito Kara nak dafa futti gouvernement Sénégal daf leen futti nu ah oui ah oui dafa futti gouvernement Sénégal à nu dama bëgg ñu dem déglu vidéo Ousmane Sonko bi déglu leen vidéo dëkk bu déggee ah, eh, ko ci lii ma gis nii. doo toog sa biir réew nga respecté nga risqué fi sa bakkan pour li yàq réew mi ñu changé ko. kon man fi may waxee mooy d'accord ma ci suñu génération ñun ndaw ñi réew mu baax rek dafa am génération bu sacrifié xeex balaa ñuy risqué suñu suñu bakkan fii ci géej gi. surtout nous les jeunes surtout nous les jeunes ñun mënoon nañu ne ñun suñu bamba maase na parce que ñu ngi yoroon suñu liggéey yu baax di fay ko xaalis bu bëri am suñu kër am lépp.

man sàmm fépp. voilà lii la Sonko waxoon ci mbirum immigration clandestine comme niñ koy waxee nag toujours wax dafa metti wax dafa metti wax moo metti imam wax dafa metti de Ousmane Diagne mi ngi en exil ku xam wax ma Ngagne Demba Touré en exil tant d'autres fan yi rek am ñetti jeunes yo dañ leen xam partager au maximum il faut partager au maximum partagez leen au maximum parce que dafa melni bi comme toujours nous leen koy rek parce que fait que une rek est une solution voilà partagez au maximum voilà Fanny, mairie de 40. poste l'officiel Caran Fatigue Sénégal décès de trois jeunes de la commune de Caran. poste en pleine poste en pleine mer 40 en pleine mer. Une très grande perte par ce poste. La mairie de 40 postes présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées et leurs amis et proches. Bref, à toutes les populations de la ville de Mam

suñu ay universitaire ño nek di jël gaal yi di génn réew mi di jël avion yi Macky Sall mo ubbi buntu yi de pour ma wax leen ko pour ngeen xam Macky ak ño ubbi buntu yi ño ubbi buntu avion yi ubbi géej gi parce que ba nangu ñu ndogalu nangu ñu ne yalla dafa dogal ne ñom sen waxtu jeex na ci Sénégal mu jaral Nous, au moins essayer de sacrifier nos fils nos neveux nos frères bàyyi leen ñuy jël l'avion. di jël imaginez Bande imaginel rek ban dëkk ci àdduna bi ngeen xam du Nicaragua le ñuy wax waa Nicaragua fu ñuy billets billet Sénégal fan la ñuy à l'aéroport international Blaise Diagne en complicité avec qui avec les autorités sénégalaises Ni jël bato bi fuñ koy jëlee Gambie dedet. Ni jël gaal lañ koy non Sénégal Sénégal lañ koy jëlee Beccé ndar kam man nak samay wax du neex ndax autorité sénégalais bo waxé ci lañuy ragal dellu ginnaw. ndax xam nañu ne bi xam nañu té man ma ngi waxtan ak autorité américaine yi pour alerter len né len lepp lu génn Sénégal gouvernement Sénégal bi ci bopam moy complice lepp lu joggé Sénégal c'est le gouvernement sénégalais qui est complice kan lañu bëggul mu tukki pap Alé dañuy japp sen passeport kan lañu bëggul mu tukki El maling ndjay kan lañu kan lañu bëggatul mu tukki Amadou Ba ñan la ñu bëggatul ñu tukki mooy ñi am xam-xam te bu ñu demee dañuy représenter partie bi ñoo ñu bëgguñu ñu tukki Pape Alé Niang journaliste la bu génnee pour ñoom day dem ci ay béréb ci adduna bi fi journaliste yu xarañ yu mag yi di daje mu wax leen li xew Sénégal donc ñooñu dañoo nangu seeni ay passeport imaginel ñi am passeport légalement am visa dañu nangu seeni passeport ak seeni visa ku mel ni Ousmane Sonko El Malick Ndiaye ak ñëpp ñi amul passeport ñi am problème mu légalité ñooñu ñu ne leen jël leen avion foo leen xam dem leen maanaam Sénégal moo nekk di sànni ay doomam c'est le Sénégal qui est en de jeter ses fils mi ngi mel ni borom kër bu amatul añ ci biir këram. mu ne soxnaam ak ay doomam yu jigéen ak lépp dem leen ngeen jaayi seen bopp mooy prostitution Sénégal loolu la wax ay doomam jaayi leen seen bakkan jaayi leen seen bopp loo leen am jël mais mënatuma leen yor Macky Sall a failli sa mission Macky Sall dans douze ans il n'a rien fait au Sénégal ñun ñëpp ñu xam dans douze ans non on parle pas de Sonko vouloir quitter le pays. Sonko était en tournée internationale. On parle de Sonko qui faisait ses tournées internationales. Macky Sall a essayé Sonko une fois, de le laisser sortir du pays. Si Sonko sortait du Sénégal et allait aujourd'hui à Paris, je ne parle pas de soin d'Amane Bouéré Ping, comme voyage tournée internationale. Regarde, la, regarde ce que Guy Marissagna a reçu. Les gens ne sont pas en train d'accueillir Guy Marissagna ils sont en train d'accueillir Ousmane Sonko c'est ce qu'ils sont en train de faire Madara dara une ci popularité Guy quelqu'un d'extraordinaire avec un gros cœur mais Guy Marissanya, c'est un envoyé de président Ousmane Sonko Madame Yonnentou, Ousmane Sonko si aujourd'hui ce même Ousmane Sonko sortait mu New York je vous garantis que amul ben salle ci New York bu ko accueillir Central Park lañ koy accueillir et ce qui va se passer le gouvernement américain va voir un Africain plus populaire que le président américain et cela fait trembler les montagnes des Occidentaux imaginez Ousmane Sonko mu New York et 100 000 personnes watch. ci mbedd ñëw gàttandu té te gëm am manam lu histoire un président étranger accueilli comme un président américain ci parc lañ open park te li ci kanam rawuli du man jox promesse bob. ba Ousmane Sonko tukki président Sénégal ba a son premier voyage à l'extérieur ngeen xol ni muy day ni lek malé tous les Africains viendront le voir oui Côte d'Ivoire Malien Burkinabé madame Lep. député rew Madame manam c'est yooyu sen les Ivoiriens je les rencontre toujours ah votre son cola... eh si on avait ça en Côte d'Ivoire les Burkinabés ah si on avait votre son cola les Guinéens ah votre son cola, il est bien lingue ngay dégue toujours L'île la Macky Sall xam mu gis nga Sonko patas bu tàng la mënoo koo lok ko Sonko patas bu manoko la manoko lo. manoko diap et lok say loxo sa nga ko imaginez len la DGE direction générale des élections mu fen fen bu tàng jër ci kanamu àdduna yépp mu sos mu ne moom de jotul li nga xam ne moom mooy changement bi ñu dugal Ousmane Sonko sur les listes électorales bi ko juge bi ordonné rek bi ko juge bi ordonné rek ñoom waa daaf dugal nañ ko ci Wadaf, daaf bi ko juge bi ordonné rek bi juge bi joxé wadaf, autorisation rek waa daaf automatiquement ñom doxalee nañu li juge bi bëgg la DGE ñu japp ko en flagrant délit bu len fàtte ne nee naa amna, avocat bu mu yobbu DGE un jeune avocat qu'il a payé pour aller faire ses sales boulots à la DGE en compagnie de Thiendella te Thiendella nee naa leen moom cagatoom bi ak sàcc bi mu nekkee ci réew mi ak riche bi mu riis bi mu fi nekkee commissaire ak diggante bi ak nekk fi DGE ba ma leen sax am na fi benn woykat bu siiw damay bañ a waxaat initial yi Sénégal yënguwaat am na benn woykat bu siiw boo xam ne waa DGE nee nañu day ñëw ci bureau mu koy tëdd ci biir bureau moom Thiendella mom la ñu ci flagrant flagrant mensonge la DGE plie en flagrant délit de mensonge révélation de taille la DAF a affirmé aux avocats du président Ousmane Sonko qu'elle l'a bien réintégré sur le fichier électoral. Ce qui montre que la DGE avait froidement menti dans son communiqué d'avant-hier indiquant que PROS n'était pas sur les listes électorales. La DGE seule dans ses bêtises administratives est isolée Madame, dafa am ci administration bi ay été isolée. madame ne dañ a isolé maanaam ay bandi y a juge dama affaire vous voyez l'association des magistrats ku ni maa xam Diallo boko don doon jaay kenn du ko ñaari fistine juge Mamadou Sek, boko don doon jaay kenn du ko ben benn fistine genn parce que administration bi léegi ñi bax gis nañu ku melni Sabassi limu am Sabassi mais xol leen limu am un juge faire son travail il est devenu héros national un juge qui fait son travail est devenu héros national par contre, les autres délinquants qui nous prennent comme des moutons, qui sont en train de voler nos ressources, qui sont en train de faire du n'importe quoi dans notre pays, jaruñu 50 centimes juge Bodon doon qui Sénégal nyari juge yooyu nyari derm dërëm imaj, imaj inelim. İmaj inelim. İmaj inelim. İmaj inelim. Imaginez-le Imaginez-le tok, kol, ni ils ne font rien pour ce pays Ni administration administration la wax administration amul dara Lo Hamne, ils sont chargés de nos élections te yalla ak yonent bi ne dina daan. gis nga Macky Sall <clears throat> xam képp ku am benn benn tokku xam-xam benn tokku xam am di xool Sénégal ni muy doxe di xool Sénégal ni muy demee di xool nu réew mi di doxee est-ce que gis ngeen réew mi ni muy demee est-ce que gis ngeen tappale bi nga xam ne moom mooy dox ci suñu réew mi tey nañu dem ñu déglu ki nga xam ne moom mooy mandateeru Ousmane Sonko bi muy Ayib Daffé tey delluwaat na DGE de même manière comme ni mu koy defee toujours pour dem jëli li nga xam ne moom mooy fichier parrainage Ousmane Sonko Nous de défiance de refus d'exécution des décisions de justice ce qui sont des crimes contre la Constitution qui sont punis par le code pénal et nous avons aujourd'hui encore la Commission électorale nationale autonome pour demander à la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, de faire prévaloir son pouvoir de substitution d'action et son pouvoir de décisissement de la DGE et qu'elle nous remette dans les meilleurs délais les fiches de collecte de parrainage du candidat Ousmane Sonko. On a demandé également à la Sénat de saisir le Conseil constitutionnel pour qu'elle tienne compte du délai. Parce que les opérations de collecte de parrainage ont démarré depuis le 29 septembre. Et aujourd'hui, on est le 2 novembre. Ce qui veut dire qu'on a perdu plus d'un mois dans ces va-et-vient, dans ces dilatoires et dans ce refus d'appliquer la loi et d'appliquer les décisions de justice qui, en tout cas, euh, sont symbolisées par l'incurie de la DGE. Et nous avons demandé à la Sénat d'exiger du Conseil constitutionnel qu'elle nous donne un temps suffisant pour mener nos opérations de collecte de parrainage. En tout cas, c'est notre demande qu'on réitère, qu'on nous remette les fiches de parrainage du candidat Ousmane Sonko immédiatement et sans délai, comme euh, l'a ordonné la décision de justice du président du tribunal d'instance Ziguinchor et comme également l'a ordonné l'injonction de la Sénat du 30 octobre. Mais on constate qu'il y a une conspiration, un complot au niveau du ministère de l'Intérieur et en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, Sidi Kaba, doit prendre ses responsabilités parce que les services dont on parle dépendent tous de son département. Monsieur Aïb Dafé, dama leen di may tuuti ci Sidiki Kaba ngeen yeewu waxoon naa leen ko dinaa ñëwaat ma wax leen ko temps yëpp maa ngi liggéey ci mbirum Sidiki Kaba te damay continuer rek waxoon naa leen ko newoon naa leen bàyyi leen Sidiki Kaba bi ngeen bëgg a jël di ko def nit Sidiki Kaba du nit yàgg naa leen ko wax nee naa leen Sidiki du nit wax naa leen ko dinaa leen ko waxaat Sidiki tojul fenn Sidiki jàngam soriwul Sidiki Côte d'Ivoire la dem booba bi licence yombee lool pour nekk avocat fa la dem wuti degré nekk avocat nee naa leen Sidiki day jël garabu dof je vous Sidiki Kaba prend des médicaments de fou. Maintenant, nous au Sénégal, notre vie va dépendre, notre vie va dépendre d'un fou. Nous sommes di déglu dof Nous ne dof la nuit déglu Manam, ñun suñu élection ça dépend d'un fou Sengbi, Sidiki Kaba son grand-père est venant directement de la Guinée Boko xolé ba léegi accent bi Sidiki Kaba est un fou waxna len ko dina def benen live parce que defena naa bële bima ko defé TikTok la won et ça a duré deux minutes mais je vais prendre le temps pour venir vous donner le parcours de Sidiki Kaba à sa totalité Madame, Je tambalé ba fi mu Sidiki Kaba dina ñew ma jox len parcouram famu tambalé ba famu jéxé waxuma len tambali ba a yeggali de déedéet fa ba famu jéxé Sidiki Kaba waxna len ko encore xam-xam bi ngeen di yaakar ci mom amul bala gaay di dem jangi droit bitim réew wala université Cheikh Anta Diop faculté de droit bala yoy yeb ñukoy tabaxal Sidiki bokk na ci sénégalais yi ñëk voyager dem Côte d'Ivoire boba jaaru dil la won rek da ngay dem Côte d'Ivoire pour am sa ben licence bu gaaw nga ñëw nga nek avocat Sidiki Kaba ci ñooñu la bokk c'est pas quelqu'un qui a vu le droit qu'il a appris qu'il a étudié qu'il a respecté yena ngi tok fi encore bu ñu waxee rek ngeen Sidiki Kaba il faut que sénégalais comprennent nos responsabilités voilà légui ñu dem ñu continuer

kenn amul droit ab huissier ñëw ci biir euh, administration ni day dugg ci kër wala day dugg ci benn bâtiment administratif ñu ne ko doo fi dugg kon huissier bi duggul duggaluñ ko dafa xaar ay dafe ci buntu bi bu génnee mu wax ko li ko li nga moom ko mu doog a def constat kooku mooy première jafe-jafe bi bi ay dafa génnee nag li mu wax leer na nee na le directeur des opérations électorales mooy ki nga xam ni lépp luy yëngatu ci mbirum élection yi moom moo ànd ak le directeur général des élections moom moo ko recevoir bi mu ko recevoir li mu wax dani ko ñun communiqué bi ñu defoon nga xam ne ñoom def nañ ñaari communiqué yoo xam sax dañoo wuuroo parce que ñaari communiqué yi boo ci liir ak li muy wax ak la beneen bay wax sa bokkul defoon nañ communiqué ñoom waa DG le 20 defaat nañ communiqué le 30 ñu ne ñoom ci seen i communiqué lañ sukkandiku ba mënuñoo jël fiche de parrainage di ko jébbal mandataire Ousmane Sonko. léegi nag loolu ñun jàngat bi ci war a am ñun sénégalais mooy président Macky Sall dafa décidé ne Ousmane Sonko di candidat comme tous les autres candidats mu taxaw moom Macky Sall yoon ni mag Ousmane Sonko am na droit jël ay fiche de parrainage pour dem parrainer ji comme ñëpp te lii ñuy teg Ousmane Sonko mosuñu koo teg benn sénégalais moom Macky Sall mu ne day taxaw jaay doole ni waa départemental des élections bu leen jox Ousmane Sonko ay fiche de parrainage am. kon loolu li nga ciy jàngate mooy ñoom dañu woon Ousmane Sonko dañ ko génne woon ci fichier électoral bi ndax dafa am décision de justice. Lèkè, nyouni dezyon de jysis mò kò genè ou ti fichè elektral bi. Dezyon de jysis bi lan lòn, mwen ti tèwèl a di sarbi mwen fèkè ou lòn. Nyouni nyare atikaso yankò pa dan, mwen tan yon genè kò ti fichè bi. Alò kò jys bi, mwen stèwa ni genè lèn ousman sòn kò. Wè lèkè, nyouni mwen genè ousman sòn kò ti fichè elektral bi. Nan den kò dan, nyare atikaso yon mwen rote di. Ten nyouni mwen dèm dèm dèm dèm dèm dèm dèm dèm dèm dèm dèm ñu ngi ko dégg léegi ci dàmboj nañu demaat bismillah dañoo sonn dañoo taay ngaay euh, xam naa nag temps bi mi ngi ñuy jéem a xoj léegi damay ñëw ci euh, papito kara papito kara suñu frère Bobo, encore une fois c'est le symbole de la faillite de Macky Sall Demain, passer toute la nuit à regarder le talent que possède ce jeune homme talent bi Papito Kara am mën soukali après développer après parce que ay dofu rek ay dof rek mën nañoo développer après moo ñu dal nii ci Macky Sall ak ñu ñoom euh, Papito Kara il est quelqu'un d'exemplaire dama bëgg a ma jox leen benn exemple ci moom benn vidéo bu mu def vidéo bi dafa mel ni vidéo bu muy tàggatoo euh, les jeunes sont fatigués Té damay wax ak sama benn xarit bu baax ndeysaan mu ne ma Papito de fii la toogoon sama kër ça fait vingt jours de cela vingt jours de cela mu ne ba mu ñëwee ñuy waxtaan waxtaan waxtaanu àddina fu mel dafa ñëw tàggatoo ba mu pare ba ñu paree waxtaan ndeysaan bokk na ci mu doon waxtaan ak kooku daf ko ne mujj gi dañu dem ba Touba la nekkoon nee na dama demoon Touba ndax dama dañ ma woon ñu may seetaat i est traumatisé dañ ma ne woon ñu may seet donc dama demoon Touba maa ngi soog a ñëw nii kooku ne ko yàlla baax na ñuy waxtaan noonu ndeysaan ba mu jógee foofu dem këram ne kooku nag ndeysaan dama fàtte sax photo wuñu bi ma fay jóge kooku ne ko si si c'est vrai ko incha allah bu ma beneen yoon bu ma ñëwee ñu photo mu ne ko waaw kooku ne ma ca ko gëj a dégg dafa vingt de sala dafa mel ni dafa demoon pour tàggatoo gars yi ma tegal leen euh, vidéo patito bi sopp sunu kaani gi lem wala ñu man kaan lépp lu ñu am si jobas lem sagal suñ njiit li ñu tus ñoom ñëpp a yem moo tax tey bu ndaw ñi gàddaay génn dëkk bi bu mu leen yem janax bu bëggee rëcc noo def mu bëri feem lu mu metti metti danañ ko jéem feneen la ñuy jéem a làmbaat jël yeneen caada la bat comme ñoom nekkal fu lu dul ku wax ñu yàlla la baat ko mais sadik di fi ne suñu xol yaa ngi taa mënatuñu yow jërëf suñu yaay du leen jox naana waral tey ñu soppeeku doon ay ninja noo def ñu dox dox bi jaww ji rek wala ñu jël yoonu ndox bi seen ñàkk xara ñu waral waral dox bi lan nga avion la pour le bateau yi suñu gaal ay kuule ñu seen beneen gaal du caagan seen dañoo bëgg a génn Sénégal waaye suñu jiit yi ñoom ñooy seral kon noo def dox dox bi

sagam suñ jiit li ñu sàkku tus ñoom ñëpp a yem moo tax tay bu ndaw ñi gàddaay génn dëkk bi bu mu leen yem janax bu bëggee rëcc nooy def mu bëri feem lu mu metti metti danañ ko jéem feneen la ñuy jéem a làmbaat jël yeneen caada la bat comme ñoom nekkal fu lu ku wax ñu yàlla la baat maa ñu jël la yóbbu dik arrêté de manger les pizzas ngeen ñu dik amul leen ko mais ngeen may ñu visa leen ñu sadik fi ne suñu xol yaa ngi daa mënatuñ yow jarab suñu yaay di leen jox naana waral xëy ñu soppeeku doon ay ninja noo def ñu dox dox bi jaww ji rek wala ñu jël yoonu ndox bi seen ñàkk xale ñoo waral mën a dox bi langaaf yee yëg pour le bato yi suñu gaal ay kuule ñu seen beneen gaal du caagante dañoo bëgg a jënd Sénégal waaye suñu jiit yi ñoom ñooy seral kon noo def ñu dox dox bi gaay xamna nak duma ci manati tek lu bari dama len di tegal video bi euh, pour tagato benen video buma yenen patriot yonne desan ci bir ndox ñu déglu gars yi duma kenn nak pour wax len li waye bi du pexe bi yoon bi du solution bi ñun ñi njëkk tukki ñun ñi leen njëkk tukki dañoo réeroon moi j'avais dix-sept ans dix-huit ans quand je les années quatre-vingt waaye démb bu doon tey duma génn senegal ndax on est arrivé à bon bord incha allahu rabbi ñetti weer ak tuuti moo ci des Sénégal buumu njaan bi dagg ba faw ay nit ñu bari nak dañ may interpeller ci li chaque jour ñu ne ma est-ce que du titangé motax tax Macky Sall di def li muy def ni pour couvrir son arrière mané ne Macky Sall dafa xamul différence déglu ma bu baax Macky ne sait pas la différence d'un développeur et un détruiteur manam kuy détruire ak kuy développer duñu ben amna borom xam-xam buma ma sa waxal mu quand tu penses tout ton temps à à garder la haine contre quelqu'un quand est-ce que tu auras le temps de prendre ton bonne énergie pour te développer la vie C'est rek que bëgg a jàngal Macky Sall comme leçon Macky xeyna ñu ngi xeex ak yow pour jël réew mi ci yow la ñun yow do suñu misère xamna yow li ngay xalaat yeb moy ñun buñ la jappé comme buñu paré buñu jëlé réew mi juroomi at ñukoy def di traquer say bien ak say bien ou famille ak say bien ou dom ak sa jabar ak say xarit billahi Ousmane Sonko bu jëlon réew mi da koy jema a développer d'abord woutal ndaw ñi xey bu boba lepp lu ñuy gestu ji ñu gestu ñun talu ñu len maki bayyi li ngay def ci réew mi bayyi li yak réew mi bàyyil yàq réew mi ba foofu xam ne bu fa yeggee kenn dootu ko mën a defar dimbali ñu ngir yàlla nga teg réew mi ci yoon ñun yow doo suñu misère man bokk naa ci sénégalais yoo xam ne tey billahi wallahi tallahi bu ñu jëloon réew mi damay ne gars yi bu ñu tal ñii les perdants laissons les tranquilles bàyyi leen ñoom ñu dem xaru ji fële ñun ñu liggéey suñu réew oh. oh gars góor nanu góorgóorlu Macky dimbali ñu ngir yàlla nga nga delloo ñu réew mi ci jàmm bul yàq réew mi waa Sénégal bëggatuñu la loolu je pense que man waxuma ko en tant que Tounkara activiste mais je le parle en gain de cause preuve yi yëpp ñu ngi ne fàng nga koy xool Macky divorce bu rafet moo gën divorce bu bon lii jaru ko amul dara ci àdduna lu jar fi ñu jëm ak yow amul dara ci àdduna lu ko jar Macky na rafet li ci des bareetul na rafet Macky na rafet réew mi metti na sénégalais sonnoon na rafet dafa jot mu rafet vraiment man la tangalu la caramel mais la réalité en est que nous on n'a pas le temps de faire la guerre avec vous les bandits et les délinquants les tueurs et les voleurs nous on veut développer le pays le Sénégal c'est ce qu'on veut développer ñun développer réew mi moo ñu tax a jël suñu réew momu tak ko ci ay loxo yu set gone yi liggéey mag ñi mëna retraité di fayeeku seen ay retraite nek ci ma ki dimbalé nu ngir yalla dimbalé nu imaginel yow ngay un président sortant du senegal ñun ñu war a tabax réew mi yow nga dem mujje ci ay ay ay ay rato walla ay ay ñu ay rey sénégalais yi di la rey di def ñaawteef guerre civile di am ci réew mi ñu lay daggate un président loolu honoré wu la man ngaa bàyyi pourtant ci njëkk comme nous nga ko bañee def ci troisième mandat bi nga bàyyi Sénégal à élection yu libre et transparente tu as fait assez de mal même bu ñu la tëjoon 100 ans loolu du effacer ñaawteef bi nga bi nga def même bu la reyoon du effacé ñaawteef bi nga def donc man bokk naa ci sénégalais yi nga xam billahi wallahi tallahi lazim dama leen ne nañu ignorer Macky Sall et on n'a qu'à construire notre pays du ñu construire suñu réew ci haine ñun amuñu haine on peut pas prendre toute notre vie ñu la koy il ñun loolu intéressé wuñu imaginel yaa ngi jëflanteeg yàlla yaa ngi jëflanteeg xale yi yaa ngi xeex fi muy mujjantal mujjantal gi jëlal sama kàddu yi ngeen dagg ko ngeen denc ko parce que maki fi muy mujj sénégalais yi dinañ la mere mere bo xam mere nañ la fi ne waaye j'en suis sûr et certain que ça peut se réparer dellul ginnaaw ba nga amee chance man nag bu ma waxee xamal ne lu may wax yëpp dafa am fu ma ko teg dellul ginnaaw ba nga amee chance boo poussé mbër mbir mii ba mu sës sénégalais yi dinañu teg loxo ci yow te sénégalais yi bu ñu tegee loxo ci yow danañ la ray danañ la def lu ñaawa ñaawa ñaaw sénégalais yi mere nañ la mère boo xamné buñu tégué loxo ci yow dinañ la dagaté ay morceau yi morceau yi morceau Macky di la def lu len neex et pourtant lolu yépp man nga ko éviter tu peux éviter cela Macky sors par la grande porte sors par la grande porte génnal ci mbirum élection wu Sénégal ba mu set tu n'es pas candidat tu ne peux pas faire gagner quelqu'un Macky

arrête vraiment arrête avant qu'il ne soit trop tard xamna na yaangi setan yaangi deglu say xarita ngi setan ñuy deglu bul top ben groupe nit bo xam vraiment ils sont dans la merde ñu bëgg la gëna duggal ci goute il ne faut pas être l'otage de quelqu'un gennal maki nga dem mo gën boko ko ya kayti man nga cee génn Sénégal amul ñu dul waxtaane tu es un président ñun ci suñu bop ça nous honore pas pour ñuy sétane ñuy humilier un président ñun loolu honoré wuñu ñun sénégalais dañu am classe am dignité am grandeur amul lu xewul Sénégal mais pourtant on l'a toujours on a toujours pris le le haut le haut pavé le haut du pavé té loolu la bëgg ci yow moy ak ñaawteef fi nga def ni yépp ñu won adduna bi ne nous on est exemplaire ñu romb la fi ñu dem développer Sénégal def ko réew yi gën a avancé ci adduna bi duñ fi toog di def ni yeneen réew africain yi de jàpp ay président di ko watat di ko dóor ak di ko rendeeg di ko daggateeg di def lii di dem justice di yéeg ak a wàcc cinq ans yi nga war a développer réew mi yëpp nga def ko à chasse à l'homme non non non c'est pas notre cas Macky génnal ci li nga ne balaa muy trop tard nul nul nul n'est te xam nañu ko waaye billahi soo amoon tuuti xel nga dégg ma may wax dangay xam ne am naa fu ma tibbee lii de sama biir xol Macky dellul ginnaaw Ousmane Sonko mënuloo ko xañ doon candidat day nekk candidat te moom mooy nekk président Sénégal 2024 loolu nag imaginez yow mu nekk ci benn moment bu tension ngay forcer di forcer sénégalais yi gën mer nag jàpp la Macky tu ne pourras pas vivre pour même nga enjoy say sët waaye li ngay def nous on est des sénégalais arrête avec ça mer nañ la trop waaye comprendre nañ la aussi que mère bi dañ koy jël tegee ko boor jël suñu xol yu baax yi defaree ko suñu réew d'abord taluñu la Maki, arrête Arrête Arrête Tu as toujours la chance d'arrêter. Pourquoi continuer Pourquoi forcer Yo, tu nous as dit l'histoire de Moïse et Pharaon. Mais tu sais la finition. Maki, tu finition, Tu peux te retourner avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux te retourner. gars yi suba dinaa ñëw ak euh, live suñu frère patriote bi ñu jàpp famille am yëpp on est toujours comme ni ma leen ko waxee dans les préparations euh, am nañu lu baree baree baree bare ci information yi waaye suba dinañ ko ñëw yeggali incha allahu rabbi délinquance bi nga xam ne moom la Macky Sall ak gouvernement am bii nekkee ci réew mi di yàq suñu réew mi di vraiment di continuer forcé nag te kenn xamul quoi Il continue. Nous nous c'est pas trop tard nous on ñun ben mbébét rek nous am maki defar suñu réew mi suñu doom yi li des ci réew mi li euh, bu n'est-ce pas Maki, tu as déjà fait assez de mal dans ce pays arrête de forcer avec ce farbangom et quelques délinquants qui t'entourent ñu lay gën a dugal ci guuta yow yeewu nga fi mu ne xam nga ne dañ laa dugal ci guuta na guuta gi arrêté balaa muy trop tard gars yi maa ngi leen